dafa am ci jàngkat yu bees yi ñoo xam ne tey dañoo dàq lii yëpp dàq nañ sunna dàq nañ ijma dàq nañ xiyaas ne leen rek moo wala bal mooy alquran mooy def ñoo yow waaw ñooñu de li ñuy wax xel ci boppam moo ko dul nangu <laughs> waaw xel xel rek ah. du ko nangu hmm. ndax lu tax hmm. alxuraan jiñ saxal hmm. alxuraan jiñ saxal fi mu jaar ba agsi ci ñoom foofa dong fa la sunna jaar amul hmm. ak wuute sëñ Cheikh Tidiane jàng alxuraan da ngaa judd rek ñu yóbbu la ca daara ne la lii mooy alxuraan nga di ko jàng. ci lu wér ba nga jàngee ba ak ràññeeku. ci nga xam ne lii alxuraan la jo jibril daa wàcc ci yonante bi ci ndigalal sunu borom yonante bi kum ko doon jàngal saxaaba yi. Hmm. ginaaw bi yonante bi dem na bàyyi fi saxaaba yi. bàyyi leen ak alxuraan ji saxaaba yooyu ñoo ko jottali ñu di ko jottali di jot ba mu ci yow. Hmm. agsi ci man agsi ci jullit ñëpp. kon alxuraan li muy yéeme yéeme ci loxo ay nit la jaar. ba ci man waaw. Hmm. kam jaaroon di yonent bi alayhi salaam da doy. ñi fi ñi ko ñi jàngal muy saxaaba yi faaw dañ lay doy ndax boo nee saxaaba yi doy ñu ma ñun laa kon de mbir mën naa am ndax mën na am alxuraan jii ñu la jox ndax ku la doyut lu jaar ci moom lu ne xaj na doy ci kon léegi boo nee noo mën a waxee ne alxuraan ji moom doy na ma hmm. te fi mu jaar dong la sunna foofu dong la jaar dafa bàyyi koo ci yonante bi hmm. saxaaba yi donc ñoon noonu ko nettali noonu yonante bi dafay jóge taabixiina yi ñëw taabixiina ñu ñu fekk mooy dongay yonante bi mooy saxaaba yi saxaaba yi ne leen nun de nii lañ gis yonante bi doon jullee nangam di bi mu xewee nii la ci attee nii la defee nii la defee nangam saxaaba yi leen wax loolu bañ mën koo gëm ñoo leen di wax ne lii ay aayal yu bàyyi ko ci ñu gëm ko ñoo bokk wenn yoon wuñ jaar ba ca tege mooy boo demee ci alquranul karim hmm. dafa lay delloowaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam atiu llaha wa atiu rasula ak atiu llaha li ci nekk kenn xamut nu mu toll day tudd yàlla day tudd alquran ba noppi andi yonent bi alayhi salaatu salaam teg ko ca bu fekkee ne alquran dong rek lañ war a sukkandiku ci ñoom seen déggin ci ñoom seen déggin ndax bu fekkee ne li ñu wax ne alquran képp la ñu war a topp bu fekkoon loolu dëgg la ci ñoom hmm. faaw dañuy dem topp yonent bi ndax alquran ji ñu wax ne man moom laay topp moo ko moo dem leen topp ndaw lee moo ko fi andi moo ko fi andi su ko defee bam ne bil bayyinaati wa zuburi wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun dégg naa sëñ boobu daan ne wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ngir nga feeñal ko lay firi <laughs> waaye la ca xorom mooy bil bayyinaati nga ko jiitu moom nangu na koo firee lu leer nee na bill bay naat na leer na nee na foofu daa leer ba noppi mm. waaye bu ñu nee litu bay na mu ne ngi feeñal nga xam ne kon mooy di di wattandiku loolu lu la arrangé wut bu fekkoon ne alxuraan rek moom la ñuy sukkandiku ci ñoom seen déggin kon day mel ne yàlla jëru sama mu wàcce yonante bi yonante bi ban njëriñ la fi am kon ab téere boo ko wàcce nga dégg arab wala nga dégg weneen làkk man koo jàngal sa bopp lépp loo soxla man caa delloo luy jar ñu fi indi ab yonant ngir mu di ko ak yonante bi ban ban njëriñ la fi am kon lan la fi kon loolu mënta nekk suñu boroom subhaanahu wa taala nee na wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah wa ila rasuli raayta almunafiqina yasudduuna anka suduuda naafiq yi boo leen waxee ni leen ñëwal ñu dell ñëw leen ñu dellu atteewoo ci li yàlla wàcc li yàlla wàcc la leer na xanaa waroon naa doy mu wa ila rasuli ñëw leen ñu dellu ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam soo ko defee dégg naa benn waay wax naa euh, euh, ndaw li la wax waaye luy ndaw ndaw li kay mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw li lañ la wax nga topp ko léegi nag am ñu am ñu doon dund ak li di ay junni junni duñ kenn duñ ñaar du ñu mën a ci wax lu dëgg ñoom ñëpp na noonu yonent bi taxaw na ne di jiite di def nii nga ne loolu gawuma ko te même ñooñu ñooñu wax la ko ñoo la jox alxuraan mënoo ci dara kon nag xel ci boppam daf koo daf koo dàq ba nag boole ci am na ci yu ñëw ci alxuraan yoo xam ne boo demee ci alxuraan da nga koy fekk nii te yow doo ci mën a indi genn leeral ci misaal suñ borom subhaanahu wa taala mi wax saxaaba yi naan maa qataatum min liinatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha mu ne fa bi idnillah ba ñuy xeex ak yahood garab yi nga xam ne dañ ko doon dagg mu ne lu ngeen ca def loola yàlla moo leen ko digal ana fu leen ko yàlla digale ci alxuraan. bañ koy def boo jotuñ digal de. ana fan la yàlla diglee ne dagg leen tàndarma yi dagg leen nangam te moo ne alxuraan moo saxal ne yàlla moo leen ko digal moom. dam jëf ja yàlla d'accord na ak ñoom. yàlla d'accord waaye ndigal da koo jaar ci yonante bi. waaw yow mi ki nanguwut nag jël ci yonante bi alayhi salaam problème bu mel noonu da koy daal di daal di am loolu mënta nekk. waaw mën naa ci yokk beneen misaal boo xam ne bu bu bu bu bu teeraa teer la. Hmm. boo xam ne jànk tubaab yi xam naa ñoo koy gën a dégg. Hmm. fii ci réew mi daa am lu ñu tuddee constitution. ci liñ ko bindee ci français. Hmm. waaw dañoo wëlbatiku am ñu ñu fal ne ñoom ñooy les sages. mooy hmm. conseil constitutionnel. Hmm. su ko defee nga xam ne bu ñu werantee ci wàllu lii war naa am wërta am nangam nu ñuy def. dellu ci ñoom waaw lu tax ñu dellu ci ñoom. te téere bi ñu yoree français la waaw mënuñu koon teg rek jàng français bi. xuma dégg nga li xuuma. maanaam masalan man ak yow buñ ci wutee woon. waaw jarul ñuy dem conseil constitutionnel. lu tax ñu fay dem man loolu laay nañ jël téere maa yo ko rek. Ah, waaw ñoom loolu la dañ wax dañu yonent bi ko dara. Ah, alxuraan dong la war a àtte hmm. dëgg. Hmm. lan moo tax suñu borom bu pare mu naan dem leen ci yonent mu àtte leen lu ñuy àtte bu dee yonent li mu xam-xam nañ ko alxuraan la juñ bind mu leer naa ñu àtte yëpp nga ca. lu mu ñuy renvoyé ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam dañoo dégg français nga dañoo judd di ko nàmp buñ bëggee xam seeni droit dañuy dem université jàngi te moo ne téere bi seen constitution ci français lañ ko bind donc mu doon seenu langue teg mu doon seen langue kon li li jaadoon mooy dañuy jax jël téere ne leen ah yéen bu ngeen bëggee xam droit constitution français ngi nii am liir leen waaye duñ ko def de ndax am na ay sew-sew yu ci nekk yoo xam ne da ngay jàng doo koy xam kon sew-sew yooyee nag moo fi indi yonante bi moo war koo leeral yenn détails yi yenn yi nga xam ne suñ borom da koy dee te deeyu ko ñëpp moo fi indi borom xam-xam ñu taxaw dee leeral bu dutoon loolu hmm. kon fawda day daal di am Eh, jërëjëf eh, Alioune Badara Ndiaye Alioune mel na ni eh, liñ nekkoon ci yi nga doon junj léegi ci alquran sunna ijma qiyaas mhm. moo taxoon ñu dugg ci lii ndax lu lu beew lu bees la lu xew ci mhm. àddina bi mu mhm. duma Sénégal yi fi ne daanaka àddina bi ah, yëpp la foo dem am na fa ñoo xam ne tey dañuy wax ne seen delluwaay mooy alquranul karim seen yoon nekku ci sunna ba tax na yu bëri looy def ci diine ji tey sax dañoo taxaw ne waru cee mën a nekk mm-hmm.